parce que dëkk bi. nabi Vision. bari na ci ñoo xam ne tey buñ sañoon du dem. am na ku ma gis sax ci télé yi. mais waxam jooju moom yaakaar naa dafa war a mën a nekk gàcce ci moom mu war koo rusa wax toog di critiquer naan waaw engrais bi dañ koo wàññi ci àdduna bi yépp banque mondiale moo def silvation pour engrais bi ñu joxe ko gratuit waa Pastef ñëw waaw ñoom nit ñoo ko wàññi nangam sangam yow loola bu amee kañ la am kañ la ko banque mondiale def. ay tappale bàyyi leen ko seen fen yi ngeen nekkee bàyyi leen ko jabalisation bi ngeen nekkee bàyyi leen ko seen fit yi moo dem te seen fit yi nag dina gën a dem de li tax seen fit yi gën a dem dootuñu am ay ndaw yu am compétence bi màgget yi am màgget yi liggéey ba war a dem toogi seen kër yi noppalu ji jox ndaw ñi relève bi ñu continuer dëkk bi ñu ne du fi am loolu moom moo fi jeex li leen metti mooy kalaasu maître ngañ Demba gi ngeen fi gis ñu fal koog Basirou Diomaye Faye miy gone ñu fal koog premier ministre bi gone ñu fal koog ah ay ñoom biram Souleye Diop ak ñoom ñëpp nekk ay ndaw ñoo xam ne tey bëgg nañoo defar seen réew ak ñeneen ñu toog ci base de tous bi nekk ay ndaw yu am xam-xam tey jii am wàll ci réew mi ngir doxal dëkk bi mën a dox loolu ngeen ni du fi am loolu nag dina leen rey tey daray leen suba rey leen gannaaw suba réew mi ndegam yàlla def na mu dugg ci loxol ndaw yi nga xam ne dëgg moo leen ñor justice bu tëddee njaaxaanaay moom moo leen ñor lépp lu ñuy wax ci diine mu nekk loo xam ne tey jii ne maanaam lu méngoog lu nekk ci alquran la lu méngoog sunu mag ñi liñ doon xeex ci dëkk bi la paa bañ a nekk ay tappale ay sos ay yoo xam ne tey jii ràcc jëmale sa kër maam bëgg faa dugal ay caaxaan yoo xam ne sa maam nekku ci woon ñun ndaw ñi loolu lañuy ñuy xeex Naby Vision ma ne ñun ndaw ñi li ñuy xeex ci réew mi ceeb yomb di jar kilo cent franc moo ci gën a ndaw gaz ñu leen koy jox gratuite moo ci gën a ndaw ngeen dem ci bisu yi ci oolub saba dollar bii ñu leen ciy jox euh, gratuite ngeen di takk ñun ndaw ñi li ñuy xeex ci réew mi looloo ci gën a ndaw laa la wax li ñuy xeex ci réew mi mag ñu nekk ci réew mi bëgg fee saxal ay fen yoo xam ni ci ñin ko teg toogal leen fi ñooñu xamuñu woon loolu nekkuñu ci woon loolu ci suñu xeex la bokk ay nit laqatu ci ginnaaw ab combat ni ñun lii mooy sunub xeex te luñ ci yóbbu seen kër la ñuy ut ak jaxase ci ay nit ñun loolu la ñuy xeex ci sunub xeex la bokk. Naby kon ñun nëbbatuwun laqatuwun daay ñu yéen ñiy toog ci plateau tele yi nag yaakaar ne li ngeen di wax metti nañu metti wun de saa bu ngeen ko waxee ba pare fii la ñuy ñëw teg seeni wax jàkkaarloog yéen xamal ni leen ci ay caaxaan ngeen nekk ci ay fen ngeen nekk li ngeen nekk askan wi nekkuñu ci ay caaxaan baaxul réew mii mu neex leen daañu ko doxal mu naqari leen daañu ko doxal ay tappale baaxul Sénégal dafa war a mën a nekk dëkk boo xam ne dëkk bu war a mën a jëm ci kanam la paa ngeen nekk fi tey di critiquer ay critique critique bonul de mais boo critiquer da nga li ngay critiquer yow ab fexeel ba am solution boo xam ne tey jàpp nga ne yow solution bii de buñ ko defoon moo ëpp amélioration comme lii ñu def mooy gën a développé tey lii ñu def mais yow di ñëw di lalli di lalli te doo lal dara te mu nekk loo xam ne luñ fi war a lal la ah boo lallee dangay lal dara mais yéen ñuy defar ngeen di lalli rek te amu leen lenn yéen lu ngeen lu ngeen di teg. Naby Vision. loolu ay caaxaan la loolu baaxul ah nit ki def dara tey nga ñëw critiquer ko wala du noonu du noonu nan la kaay wan ko nan la. lii baaxul lii baaxul lan moo baax nun koy defaree pour mu baax kaay indi ci sa solution li ngeen nekk ci plateau tele yi gis naa ay sénégalais yu bari fan yi am na ci ñoo xam ne jaruñoo soixante-douze heures jaru ay soixante-douze heures leen fii jaru ko léegi ñu noppi léegi ci kanam dootuñu am lu ñu wax parce que amuñu xam-xam te ci kanam tuuti bis bu gaa yi activer réseau yi ba organiser affaires yi tey jii nii nii yàlla mi ñu tiim xam na ne ku leen invité te ci plateau duñ dem. Naby Vision. parce que ñaawalaate dootul am ci palaato yi xastaate dootul am ci palaato yi toog di wax lu amul dootul am ci plateau yi plateau yi xam-xam lan fa soxla solution lan soxla ci plateau yi te amuñu xam-xam amuñu solution moo tax ñii dañoo neex a muñal saay-saay yi ngeen di gis ñuy bërti bërti dañoo neex a muñal dañoo neex a muñal. ay caaxaan baaxul am na ci eh, maa ngi ko gis rek keroog ku ci mel ne bu sa Dieng saay-saay bi mu ngi jéem a attaqué ñoom saa njoogu parce que ba Cheikh Baara Ndiaye eh, lay waxal bëgg koo tontu bëgg ci laaxaale ay ñoom saa njoogu ay comédie ak lu kenn xamul. tey genre googu tey jii nii maanaam li ñuy wax ñoom ci seen site internet boobu barke alquraanul karim am na télé yoo xam ne maanaam te ñoom journal yoo xam ne. télé yi revue de nañ ci journalistes yi débat nañ ci ba pare mën nañ cee ñëwaat defaat jàngat ci seen wax yooyu pour pourtant ñooñu ay borom xam-xam lan parce que ay borom xam-xam ñoo jël mbir wax ci ba pare yow te bu ñëwee mën nañ cee waxaat loo xam ne tey jii mën naa gën a ubbi sax sa bopp ci ñi doon débat ñi ci doon débat ci plateau yooyu. bàyyi leen xeebaate bi ngeen nekkee ci réew mi ngeen respecté nit ñi jox nit ñi seen àq ak seen yelleef loolu rek moom moo ñuy naqari ko waa loolu rek moom moo ñuy merloo. Naby Vision. ni ngeen jàppee réew mi ngeen war a bàyyi réew moo xam ne benn groupe bu nit ngeen bëgg koo def yëfu copain bëgg koo def yëfu famille bëgg koo def yëfu religieux bëgg a jël réew mi nag accaparé ko te yéen ñooñu ñëpp bu doon da ngeen a joxante loxo ànd ak askan wi joxante loxo sax mu mën a neex mais da ngeen di bëgg lëbbin lobin ci seen biir seetaan néew di doole yi loolu fan la teg bàyyi leen ay caaxaan li ñu naqari ci réew mi yéen yéen a ñu ko teg. bu ñuy wax ba leen di saaga yéen yéen ñu ko teg bu ñuy wax ba leen di manquer de respect bu ñuy wax ba kenn bëggatu bëggatu bëggatuñoo seetaan yéen ñii yéen ñu ko teg pour lan réew mi dañ koo bokk nan respectante joxante ak ak yelleef kenn ku ci nekk respecté sa morom loolu moom mooy dëgg bàyyi leen ay caaxaan ay caaxaan baaxul yii ngeen nekk ci réew mi amul benn njariñ Macky Sall bi muy dem Sabadola lan moo ko fa yóbbu lan moo ko fa yóbbu discours bii fa ñoom biram Birame Souleye jóob def depuis kañ la mas a am Sabodala mosu faa am du Senghor du du juuf du Abdoulaye Wade du Macky Sall. Naby Vision alal ji alalu Sénégal la da ngeen di mën a respecté li ngeen wax ak sénégalais yi mënu leen ko ñu nangu licence bi ñu leen jox xool ñoo xam ne tey bu ñu leen joxee euro Sabodala bi sénégalais yi mën nañ cee gis seen bopp. Sabodala village yu ko wër amul dara lu ci am courant gis ngeen biir Sabodala na mee lerxate lamp ya fa nekk ba boo yëkkatee lengo or sax nga gis lumière bi marqué bi mu ciy marqué rafetaay ji ngay gis te dëkk boobu amul dara amuñu courant amuñu ndox mu baax amuñu tali yu baax jël ab entreprise tey jox ko suñuy miin tey sénégalais yi war see gis seen bopp ñu defal seen aéroport ut fa seen sécurité tey di roñ suñu alal di ko yóbbu ci loo xam ne jariñun ci courant bi feeñu ci feeñul ci engrais bi feeñul ci napp gi ah feeñul ci dund gi feeñul ci dara ci ñun sénégalais yi ngeen war a toog tey bu bu ko ku ku ne waxee tey ngeen jug ubbi seen gémmeñ ñi ngalalal ngalalal ay caaxaan baaxul ñëw leen ñu waxante dëgg réew mi ñun ñoo ko mën a defar ci kaw ñu bëgg ko am patriotisme. Naby Vision. ñëw leen ñu bàyyi ay caaxaan ay caaxaan baaxul am leen yitte ci sénégalais yi respecté leen sénégalais yi loolu moom mooy dëgg ah. parce que yàlla may nañu réew moo xam ne àdduna bi ñëpp a bëgg Sénégal amul ñu bëggul Sénégal. amul ñu ko bëggul kon ñun nan am fulla ci suñu bopp bëgg sunum réew ñu joxante loxo réew mi mën a baax réew mi am na ressource naturelle bu ngeen xamul ci àdduna bi tey am na ressource naturelle yooyu te bu gouvernement bi gëneen liggéey gënee liggéey di ngeen dégg yeneen ressource minière yoo xam ne mu ngi ci biir suuf si te ñu bari ci population bi xamuñu ko woon benn ci mën ak ñeneen ak ñeneen Naby Vision nan bàyyi ay caaxaan bàyyi leen ay tappale seen caaxaan yi ngeen nekk bàyyi leen ko seen critique yi ngeen di critiquer te tegu leen ko fenn bàyyi leen ko bu ñun bu ñuy critiquer bay dagg ay saaga bu nu waxee lu naqari dañuy indi jëf ji indi wax ji bu dee wax la joo xam ne danga koo wax mu naqari ñu ñu ñëw teg say wax ni lii nga wax mu naqari ñu ñu wax ba pare saaga sa ndey ba nga tooy bu dee jëf joo fi teg la ñu wan sénégalais yi ab image boo defar boo xam ne tey naqari nañu neexu nañu di dagg suñu xol ñu teg ko fii ba ñëpp gis ko saaga seen ndey ba ngeen xam ne tey lii moo ñu naqari. Naby Vision. ñun lu ñu def dañ koy justifier ay caaxaan baaxul ay tappale baaxul dox leen ci dëgg te wax ci dëgg jàppale askan wi tëddee njaaxaanaay yii ngeen fi nekk naan ah, gis naa ku ci mel ne Ahmed xalifa Niass. mu def benn interview boo xam ni dégg naa ko sax mu insisté tudd Malika naan waaw dexu Malika ji lagu Malika bi waaw euh, euh, bala dajeer euh, bi nekk risaatool ak yooyu yëpp genn dex la mën nañ koo defaraat gis nga Ahmed xalifa Niass ay caaxaan baaxul yow li ma lay wax yaa ngi ciy jot li tax nga insisté Malika Malika li la booy Malika di wax yaa ngi ciy jot yaa ngi koy dégg dex googu yàgg naa koo xeex fii te loolu ngay wax noonu projet boobu tey balaa ko woon a tey état bu Sénégal tey jii nii maanaam lëkkaloo commune bu Malika tey def ko ba ñuy centraliser dex yi tey am beneen route boo xam ne tey jii maanaam ci ndox mi lay nekk tey jii Malika war nañoo mën a tàmbali ci seen dex gee def fa loo xam ne tey am na ressource bu mu leen mën a jural lool lu ma yàgg xeex la dexu Malika gii dexu Malika gii di ndox mu rafet. tey diggante Malika tey ba yëmbal ba Padois tey mënoon mënoon mënoon nañoo am transport ci ci ci biir dex gi defar ko mais meeru Malika ñi nga xam ne tey ñooy ay responsable yu ne yu nekk foofu ñoo liggéeyul loolu yitteelu leen ba ci yenn chef religieux yu nekk Malika loolu yitteelu leen yitteelu leen. magu caw mii ma yàgg tudd foofu yàgg naa ànd ak euh, maire ami booy tubaab bi nekk Malika ñu waa Malika xam nañ ko jël seen kanoot bi seen gaal gi di ko dawal foofu ci biir dex gi. Naby Vision. xam na foofu bu baax a baax mais lii ñuy wax yitteelu leen développement askan wi moo leen yitteelul. maa ngi dégg docteur euh, Khadim Bamba Ndiaye mu ngi koy wax naan réew mi ndaw ñi dañoo bëgg a baax mag ñi taxaw ni leen du ngeen fi baax ndaw ñi dañoo bëgg a defar réew mi mag ñi taxaw ni leen du ngeen ko fi defaree billaahi wal kitaabi loolu laa fi yàgg a wax loolu moom mooy dëgg yéen da ngeen ñoo soxoree da ngeen ñoo bañ da ngeen ñoo xiñaane barke arxuraan loolooy dëgg lolou mom moñu merlo ñuy saga lolou mom moñu merlo ñuy wax lo xamne tay da ngay dem ba di ñu dëkkal naan kii nangam dara jappuñu naanuñu jëluñu doom fóonuñu lu defuñu dara li ñuy wax lañu xam aw nakaru fe suñu bir xol la mu yagg am ci réew mi war fe dak nabi vision parce que li ñuy dund ci réew mi dañ ko xam dañu nekk ak yeen ngeen taxaw lank ni mi du dem te tegu len ko fenn lu dul seen noftu tegu len ko fenn lu bëgg ñu torox parce que lolu mom moy deug ay jaxaan baxul respecté len bëgg-bëgg ndaw ñi parce que ndaw ñi ñu upp ci réew mi respecté len bëgg-bëgg ndaw ñi lepp lu ngeen di gaddu lu diis fii ndaw ñi ngeen di woo Naby Vision ku ci am doom joo xam ne tey jii maanaam yàlla wërsëguloo ko wërsëgu àdduna nga tàmbali koo xas man sa baay laa danga maa war a defal nangam sa sa laa danga maa war a defal nangam diw sa mag la diw sa rakk la dangaa war a jàpp ci nangam nangam ak nangam te yéenewu leen ndaw ñi jàpp ci lenn lu leen mën a indil koom-koom ay caaxaan baaxul sunu or bi ana paa yuy taxaw xeexal xeexal ci ndaw ñi ah, am yéen paa yi jaakaar ngeen ne ndaw ñi moom orub sabo dollar bi bis buñ ci jotee seen jabar yi mel noo xam ne tey jii buñ xoolee sunu màgget yi maara day taale te ay góor lañ ni ndaw ñi bàyyi leen ay caaxaan seen coxor gii ngeen nekke ba leen ko réew mi ñoo ko bokk bu leen ñu seetaan bu leen ñu seetaan yéen a taxaw jur ñu di ñu dëkkal ku sañoon boo juree sa doom moo lay gën mais Sénégal laa gis ay nit yi jur seeni doom ni du ngeen ñu fi gëne Naby Vision. du ngeen fi baax tey du ngeen fi baax suba.